mbokk Samagal ah, TV mbokk internet yi ñu ngi fii ba léegi ci foire eh, sàmm gi fii ci eh, Independence Stadium Bakaw ci Gambie tey nag ma taxaw euh, ci bergerie boo xam ne kilifa gi dina ma xam mooy kan ak euh, nu mu tudd. waaw ah, asalaamaaleykum waa Samagal TV maa leen di nuyu. di leen di fay di leen di kontaan si Samba ji first edition of Samba ji association foire bi. man la Salifou. ñoom gën maa xamee si sigil. waaw di doon ndaw. buy doog a door si élevage bi doon élevage doon suñ bugg a bugg a. ok waaw. Euh, bii mooy ban farm. bii mooy madame madame Swamps. Nabous Swamps Nabous Swamps. Euh, mooy kan na Nabou. Nabou Soham mooy jabari papa. borom bay si euh, farm bi. waaw mooy madame. ok tey ngeen nekk ci Laaloum depuis kañ. waaw Laaloum ñun moom presque ñun yaagu bu ñu si duggee waaye borom bergerie bi di Nabou Soham si boobam di Papa Sakho bokk na si fi ñu fi ñu koy si Laaloum moom itam si góor yi. Ah. waaw ñun ñoo doon tuut tànk dañoo dem kiram di seeraani ay maal. waaw. doon ko am ne si xar ku yàgg si xar la. yàgg si xar la la waaw. macha allah euh, tey ngeen ñëw ci foire bi exposé. ma gis fi maal bu am dayoo bu rafet ànd ak doomam defe naa ak kii noo ko eh, noo may yi. waaw sujet yi fi nekk nii. kii mooy doom yi access muy muy boos. waaw yaayam di di doom di am amir. waaw doon maal boo xam ne mi am yaakaar si moom. waaw mu mu jur ñaar yi nii moo jur king bi nii jur madame Danso mi. moo jur. Euh, ma moo jur king jeune maal bi. waaw moo jur jeune maal bi di king. doomam yi la bokk. waaw waaw. Euh, ñaar moom ñaata mois. moom na a ngi nii. bu weex bi teg nii bi. waaw teg nii nii mooy doomam bi. Sophie fu mu jógee moom. Sophie yaayam a ngi nii Sophie mu moom tam la ju fi la ah, moo nekk nii. waaw. mooy moom ñaata weer la. maman presque lay war naa dugg si ay war naa dugg si ay la fi mama ay portem nag mënuñu ko compter ju ay doomam génn na trop. Ah. waaw gi joxe leen ay doomam yu bëri. Ah. waaw ok euh, maman euh, da ko juddoo wala da ngeen ko jënd. maman da ngeen ko jëndoon Sénégal. waaw bu mu doon ñëw dafa ñëwaale Sophie Sophie doonoon ay mbote do nekkoon si ah, un mois. jël waaw mu nekkoon un mois. ah moo ñëw ak maman mois jóge Sénégal. ñëw Sophie moo jur tey jeune bi ak. waaw ak bi. Sophie moo jur kii moo jur mâle bi. waaw ak ma ak maal bi. ak maal bi waaw. Sophie euh, ok ok ñaata moo la moom. Sophie léegi war naa toll moom presque moom si deux ans moom tamit waaw. léegi kii moom nga ni euh, euh, moom fu mu jugee nga. doomu kan la doomi doomi accès la. moom nañ ko moom nañ ko jënd dañ ko dañ ko dañ si bari. bari ah bu bari. bu bari waaw bu la ko jëndee. Ah, bari moom mooy yoroon dafa naa ni maal bi jëloon premier Gambras. muy muy muy kii nu mu tudd sax. Balla Gaye xaw ma. non muy Mambaala. Mambaala waaw mu boo bëri. waaw da nga gis access. access moom moo jur Mambaala boobu noonu. Ah, access moo jur Mambaala ak jur kii. ak jur kii ok waaw ñoom Nido mooy seen mooy seen papa. kii la si mu ma Nido Mahusey. Nido Mahusey. Nido ah, ñoom ñëpp moo meññ. moo leen moo meññ waaw nga gis Mahusey moo jur moo jur Nido. Nido moo tey Nido moo si si si jëlam la. ok waaw kii kii kii mii la. kii Serigne Serigne la. mbote bii mooy papa. papa mooy mooy mooy ci nido. ah nido moo tëb femelle. waaw nido mii nii. mu ngay gis nii bi. Ah, waaw nido suñu la ah, la daanoo. waaw suñu la si la daanoo. Ah, maal bi benn doom rek la fi indi muy jeune ñaar yi la fi jur. jeune maal bi ak tëng bi waaw tëng bi bi ko jur. tëng bi kii moo ko jur maman moo ko jur. maman maman mooy mooy borom corne yi. kan mooy jur jeune mâle bi. jeune mâle bi Sophie ko ñaari doom la fi indi jeune mâle bi ak mbote bi. ak mbote bi. léegi moom jeune mâle bi la jël daanu. si bi korité après bi ñu korité ba deux jours. yàggul ah. mu daanu ñaata la. ba daanu presque mënu ma jàppee atam waaye Nido moom mooy magistrat Gambie. mooy magistrat Gambie foire bële paase moom dégg naa Nido toj na. waaw toj na fi moom soo seedee si ah, si tey si ay xar yi bu ëpp fi ay doom. si moom la. waaw doom moo fi ëpp doom. moo tax moo ma tuddee ko magistrat Gambie. fële ah. foo la jógee bu mu dem na ba door recrute même bu mu magee na ko jël. Ah. waaw ay tour doom la fa am. fu am nañ si benn mbote bu jigéen ak ñu ak waaw ñaari góor bi yaram côté góor waaye presque am na yoo xam ne ñu ñu ngi yaakaar seen doom lii dañuy wàccee. noo gisee foiru sàmm gi. waaw foiru sàmm ji association maanaam kontaan di wax ne ñun élevage lii la leen si bëgg. waaw ñun livestock suñu sañoon ne lii chaque six mois day am. waaw di ñaan yàlla nag élevage moom di ñaan yàlla mu gën a ko la ñuy wax élevage boole. di ñaan yàlla yàlla na yàlla booleel xol yëpp ñëpp doon benn. waaw loolu loolu la ñaan yàlla élevage bi lii bu nga leen déwén daal suñuy ñëw. def neen lu tooloo ay cinquante box ah. bu nga leen déwén bu soobee yàlla ñu def ay ba ba si deux cent wala lu ko lu ko romb. waaw macha allah bi doon na foire bu mucc ayib. kon ni ko waxee niveau bi kawe waaye macha moom wax dëgg fa neex. kon waaw ñun ñun ku ñu xam si la ñu ko dooree ñun si ah. ne dafa doon loo xam ne croissant bu ah. ñu dugg si. Ah. waaye association. ma doon membre si association bi borom xarit si boo xam tam mu doon membre si association bi. waaw ñun ndawal bokk ñu xee waaw. kon yéen ngi waaj waaw waaw foire bi dañ siy jógee am naa pendant tout deux trois jours rek ñu pendant trois jours rek ñu ñu ñu ñu continuer suñu événement Tabaski waaw. ok ma ndox ma adresse bi bi. waaw adresse bi ak numéro bi ñu mu ngi Famba ñu Serekunda numéro bi mooy mooy seven two two seven two triple zero eight two two eight kañ. waaw suma numéro mooy seven two two four waaw bu baax sama gaal papa ñu am content de trop si invité bo ñu invité tay ni wa machallah jërëjëf thank you